lu TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu TV xibaar yi wér te wóor. asalaamaaleykum wa rahmatullah TV. man la seriñ Mbaye Lo Dia maa ngi leen nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak xaalis di rafetlu seen liggéey ni ngeen di analyser ak commentaire ak jàngat yi ngeen def ci série bi am na solo ak may ngeen may nit ñi ñuy exprimer wu di wax seen xalaat lu am solo la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax xam naa di ñëw tuuti rek ci ñun suñu xalaat comme ni ñu gisee série bi ci la ñuy tàmbalee ndax commencement bari woon na ay coow ñuy wax ne dañuy yàq xale yi wala mooy ñuy wax dafa vulgaire wala yooyu. loolu li ma ciy jiitu mooy Sénégal moo mel noonu dangay gis ni ñiy suyee film yi wala ñuy musique wala yooyu xam nañ ni Sénégalais yi ci boppam ñoo bëgg lu vulgaire ba boo waxul lu vulgaire lu siiw ni nga ko xamee mooy fecc moo fi xew rek dañ ci wax baat yu mooy yoo xam ne day vulgaire yenn bagage yi dugg ak yooyu rek ngay dégg mooy siiw waaye ku fooy lu baax du siiw ñii suyee nag noonu lañ xame ne noonu nit ñi bëgg moo tax ñu koy def kon. buñ condamné ñiy suyee di wax ne li ñuy suyee dafa baaxul parce que loolu ñu lu baaxul loolu la nit ñi bëgg di ko consommer moom la ñuy seetaan boo defoon benn film rek wax ni kii li mu def waa wala li mu wax waa ji wala nangam lu ñaaw ngay daal di gis ñu commentaire wala ñu seetaan ko waaye boo waxee lu baax kenn ko seetaan kon loolu nit ñoo noonu beneen bi ci des tam wax gi ñuy wax ne dañuy yàq xale yi waruñoo wane lu bon lu bon li dañ koo war a wane nga toog ak sa njaboot seetaan ko gis ni kii baaxut nga wax leen ni kii baaxut ku baax nii lay def loolu moo gën nga bàyyi ko mu tañax tañaxi ba dajee kooku faa ko jàpp ni loolu moo baax parce que loolu day dal ñu bari ñun dong daal rek léeg-léeg nga ci koo xam ne day dem ba màgg bëgg a dabe dem Dakar di solub kap di tox dem ci boire yi jàpp ni moom daa tarbe parce que xamul woon loolu waaye bu fekkoon ni wanoon nañ ko ko ci télé bon ko ne ko kii du ku baax mu seetaan ko ci film bi ñu wan ko ne ku bon ki mooy kii wan ko ku baax ki ne ko kii mooy ku baax ki bu boobaa dina ko mën a moytu te bu ko gisee dina dina ko dina jàpp ne du du ku baax loolu mooy gisee ni may am ci série yu ñaaweek man yëpp lay seetaan yëpp parce que mooy tax nga xam li nga mën a moytu mooy tax nga xam tam lii ki lii am na wala amul boo defee nag li ñëwaat mooy jàngat yi ñu ci war a jàngat nag du ni seex lim def waru koo def wala lala lim def war na koo def wala déedéet jàngat bi mooy ab série la série sénégalaise la léegi li sénégalais yi dund moom lañ suyee ndax lu am la wala amut walla ndax ñu ngi koy dund wala dunduñu ko léegi damay jàpp ne ñu ngi koy dund parce que ay nit lañ ñu wan ñoo xam ne fii lañ dëkk juddoo fi di def loo xam ne ñu dëkk fii ñoo koy def bari na ñoo xam ne dund nañ li ñuy suyee am na ci luñ dund léegi nag kon dañ cee war a jàngate kenn ku ci nekk boo tolloo situation yu mel noonu nan nga war a réassuré bi jiitu mooy góor gi mu xam ni seex erreur yi mu def yëpp ci film bi yow góor gi nga doon def sa bopp seex moytu yooyu sa biir kër mooy gëmloo na jabaram ne ko du wala mos a takkal wujj kon préparé wu ko psychologiquement ba tax bi mu amee commencé doxaan rek wala mu am am takkal ko kii yëpp daal di xew ñaareel bi mooy bi muy takk soxna procédure bi baaxut nim nim nim doxaan ndaw seeg fi mu jaar ak moom ba takk ko baaxut Cheikh def na ci ay erreur yu bari indi na ko biir këram siq faak moom ay caaxaan ci koo bëgg a takk jabaram xam na ko avant mu koy takk ci xamin woo xam ni responsableul mooy dañ doon na butu ba feeñ yooyu yëpp ay erreur la yoo xam ni ku responsable du ko def dañuy wax nag góor benn jabar dafa am ñu yàlla binde noonu ñoo xam ne mënuñoo yor sax benn jabar parce que responsable am ñoo xam mën nañoo yor ba ñeent dara du yëngu boo ko defee nag kon góor ñi liñ ciy jàngee mooy boo amee soxna war nga koo wan ne ko bëgg naa la lool waaye nag na nga fexe ba maanaa di def li nga war a def ndax nanga ma ki nang parce que yàlla may na ma mu kii waaye nag li fekk nanga ma ki nang ba mu xam daal psychologiquement dara leerul pour nga mën a am keneen mu di ko sóoraale bu ko defee jigéen gi itam war na mën a xam ni comme polygame la e suñu wut ne benn jabar nga war a kon chaque jour ne mën naa xew te góor ñi noonu la leen yàlla bindee jikkoy gileem lañ yor bu ñuy lekk ci garab gi ñu ngay xool geneen garab ga bu defee nag ñu bàyyi xel kon ni ki ma nekkal toujours war na mën a am mujj kon soog boobu dal laal dina ko mën a bañ a dal bu defee préparation boobu boo amee kër gi dina mën a am stabilisé dal seex itam ba tey dafa ñàkk yaay amul yaay seex yaayam na yàlla jégal taxawut taxawaayu yaay waaye nag day am ci kër yu bari nga gis ñoo xam ne seen yaay du mat yaay day yàq loolu nag yow góor gi yaa war a am mën a jàng gis nga kilifa gën a dafa war a mën a jàng nit xam ñi ngay njaboote ñooy ñan kenn ku ci ne lan la capable def mooy kan ndax kuy wax dëgg la ndax ab yàqar ndax ku baax la bu ko xësee xam nag bu dee sa yaaya nga xam ni sa jabar ji neex ko wala kii day yàq wala lool da ngay xam ni ngay doxaleeg moom parce que bu ñu seetee Cheikh ak Marème léegi Marème bari na xët-xët waaye problème am boo ko seetloo bariwut waaye fi mu ne laala day mel ne day day mat di ëf te loolu day am ci kër yi léegi nag loolu nit ki moo ci war a jàngee ni kon du luñ wax rek nga gëm ko ngaa war a déglu déglu ñëpp parce que dañuy wax ne layoo benn benn pàq la ku wéet yaay boo amee ñaari jabar ko sa ji di sëram doo set loolu wala fa ko wax nga ñëw ci kenn ki mu ne la kee kat dama saaga wax na ma naa wax a wax ba dal nee ko toogal dinaa ko lijjanti nga dem ca kee wéet ak moom ne ko na nga def mbaajaam kee nee na ma doon ngeen wax lu ngeen jote boo dégloo mu wax rek di nga ca mën a boo comparé ñaari wax yi di nga ci mën a jàngati seex bu ñëwoon rek ne ko ah, laal de wax na man doon nga ko woo yow tam lu tax nga woo ko ak nangam nangam bu ko defee dina ko ne man jàmm laa bëggoon rek nangam ak nangam ah nee na da saaga dina ko wax ne ko saaga wu ma ko man nangam nangam mais boo ñëwee rek arsale ko lu tax nga woo ko wala yaa ko woo wala ko mun la maa ko woo nga it kii tam dégluwoo ko problème day am foofu moo tax couple bu ñuy wax ni communication def ci am solo yu mel noonu moo tax dañoo war di communiquer. di communiquer di waxtaan bañ a réeroo mooy tax yu mel noon ñu man koo éviter loolu lu mel noon am na ci diggante Tafa ak ak ak jigéen ñu maçon bi soxna si damaa fàtte bi seen diggante ñoom ñaar lu mel noonu am na ci mooy paa bi mi ngi koy éviter mu mu ne damay dem pour wax ko ne ko du ma mën a na nga bàyyi ma bëgg ko wax boobam pour mu bàyyi ko Tafa ñëw biroom di ko éviter mu nëbbu ko mu nëbbutu ko kon nëbbutu ak ñàkk communiquer day indi foofu problème. léegi bu fekkoon ne waxoon na ko ne kat paa bi kat moo may def yéeg yi wax ko li xew lépp waaye dama ko bëgg a wax boppam parce que nanga ma ngi nang ñu déggoo ci ñoom ñaar mën nañoo ànd sax ba ci buntu ba mu déposé ko mu dem parce que loolu complicité loolu mel noonu lay jariñ kanta jalika nag ak ak ak jor <laughs> foofu man mbëggeel laa fa jàng ni mu am doole mbëggeel moom laa jàng ni moo am doole parce que jalika ñaar rek lay wax bu fekkee ni comme takk def daf ko naqari benn daa loolu ci jëkkër ji wala dafa jàpp ni jëkkër ji baaxul bu fekkee da cee doyulul moom moo ñaan bopp baat moo ci génn waa ji ñëwaat na ci moom mu bañ kon du loolu bu fekkee nag dafa jàpp ni baaxut kon xaritam waru caa dem du ku baax ba tey kon dinaa ko mën a comprendre xamuguma nag ñaar yooyu ban la ci waaye bu fekkee dafa jàpp ni ñàkk baax gi moom xarit bi xam na ko parce que ñoo bokkoon di dund jafe-jafe léegi nag joor bu fekkoon ni ci biir sëy bi la siq ak biram dara kon dinaa yedd joor waaye joor diiru jalika di sëy biram mi ngi jàppale jali kay financement di ko jàppale ci xel bu fekkee sax biram ci hôtel bi ci ci baar bi ne dàq ko ne ko demal ñibbi kon joor ku baax la kenn mënu koo balaame wala nga di ko wax ne ko waroo woon a def lii mais nag mbëggeel la ñuy wax ni moo doy waar parce que joor daf doon def rek pour dimbali biram ngir mu bàyyi naan geeg di ko yedd ak di ko xas biram wax ko lim defak ak jafe-jafe yi ne mu yërëm ko di ko toppatoo far bëgg dugg seen diggante te bëgg moom bëgg la tudd xol maa leen wax tey maa wax leen ko tay xol amul kilifa xol amul kilifa kenn yilifa ko mënoo koo wax fii ngay jaar wala nee ngay jaar léegi nag loolu lañ ciy jàngee dañuy jàngee ni bëgg moo sori boo gisee ñuy wax ni soril bul jige wala laa wala nangam nangam <laughs> si yooyu dañuy dañoo xam ne jige ga la ci mën a xew moo na bëgg moo am foofa bëgg nag comme Jalika ak ak ak biram seen sëy bëggante dafa amuloon moo tax problème yaa am yëpp am kon bu ñaar ñi dajee yàlla dogal bëggante am rek fu foofaa yedd waru faa am wala dara donte nag ay xarit lañ nangu sa jëkkëru xarit ñaanu waaye nanguwul jëkkër ji dañoo tas ñoom ñaar dañoo tas te biñ tasee ñoom gisee nañ def ay caaxaan joor nett li ko jalika léegi nag jalika day natt ñaar ndax ñu ñoom ñaar ñu àndi mooy yàlla wala mu takk ko lan mu ci gën rek te yaakaar naa takk gi moo gën man daal noonu laa gisee noonu laa gisee ba noppi itam ñu xamee ci rek ni Sénégal dafa xat parce que boo gisee ndaw Stapha si yaayam mi mel am na lu mu ko doon nëbb ci papaam ak ci ak nangam te mi ngi commencé yooyu yëpp day wane ne rek yu bari jërul nëbb nit daal dafa war a def lu jub di def lu leer waaye du problème mu ay ay kii nii la waroon a def wala kii laa faral waaye dañ ci war a rek ni li ñu suyee réalité la yuy am kenn ku ci ne mën naa am naa yaa ngi koy dund wala dundoo ko waaye bis mën naa ñëw loolu dal sa kaw nga jàngate ci nag léegi lu mel noon noo koy teggee ak bu dalee ci sa kaw noo koy seeree waaye ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégg lu mu ñëwaat tuuti nag ci niti daara yeeg sama kilif mbokki daara yi sama kilifa yooyu ak niti diine yi bàyyi loo leen xel tuuti ci nii série yi ñuy contre ak di dem ci télé yi di wax ak yooyu dañ leen di may rek am riir ak bës man bari na yoo xam ne seetaanu ma ko waaye biñ ci commencé coow fi ne série maîtresse biñ na imaam yi dañuy mars rek ci laa commencé di ko suivre ba xam ndax liñ wax nu mu demee te boo dëgg yàlla ba ma lañ ca doon wax fekkuma ci dara lu dul li ndaw si doon wax ne li ma yor maa ko moom wala yooyu loolu wax dëgg yàlla li ma yor maa ko moom loolu vulgaire baat bi boo ko déggee léegi nag ndax dañuy seet nii ki nga xam daan ne ca la mu war a ne ne ca daara ja moom yoonam newul ci série demul fañ koy suyee bu dee télé bi mën na ko bañ a bu dee internet bi mën na ko bañ a seetaan bu fekkee nag ku yar ay xale la da ko war a seetaan parce que mën naa am seetaanoo ko te fekk xale yaa ngi koy seetaan daa war am sax maanaam nga di leen ci yee di leen wax ni kat ni ma ko njëkk wan a waxe lii gis ngeen ni ko kii defee du nii nii la ko waroon a defe parce que kii baaxut ki ñu leen di wan ci film bii du nit ku baax parce que jamono ji foofu lañ toll mais tollootuñ ci tënk ci nit ñi naan dañ leen di nëbb lu bon li suñ doom yi waru ñoo seetaan parce que dañ leen di yàq déedéet fi mu toll ji dafa toll ci ubbeeku jamonoy internet la kenn ko yor sa téléphone di dugg YouTube di gis lépp kon daa toll ci say doom nga di leen wan lu bon loolu benn par benn di leen jàngal lim doon di ko wax ni ko kat kii kat gis nga lim def nii gis nga fi mu mujj kii kat bu duggee fii fii lay mujj kii lii mu def nii baaxut kon waroo koo def mu xame ci xam ne lii waru ko def waaye boo ko bàyyee mu seetaan rek moom du xam ndax lu mu war a def la wala lu mu war def day fan ki koy def rek jóg dem def ko kon dama jàpp ni man dañoo war a sensé méthode mooy di seetaan di seetaan série yi bu baax a baax di jéem a kar ñi ñuy yar di waxtaan ak ñoom ci yooyu parce que niñ ko xamee nii ñoom ñi ñuy yar noonu lañ ko xamee kantaan nag ab sëñ daara buy jaay yamba wala jaay ko loolu moom ak tooñ la waaye dañ koy jàppee rek ni bi seet nga dégg ñu ni président yi dañuy def nangam wala politiciens yi dañuy jàpp ay xale di leen def nangam te du politiciens yëpp waaye bu ñu waxee politiciens yi kenn génnu ci léeg-léeg ñu yi nangam nangam te du journaliste yëpp comme sénégalais mooy defee noonu wolof mooy waxee noonu waaye rek ñu wane ne rek lu mën a xew moom maanaam bu ñu wax ne sëñ daara yi dañuy def nangam wala nangam maanaam loolu taxut daara bon taxut tam sëñ daara yi bon bu ñu ko waxee buñ nee sëriñu tarixa ñaankat yi dañuy naxaate dañuy dóor teewut ñi mën a ñaan mën a ñaan teewut comme aajo dem ñaan lu ji loolu moom mënu fee jóg bu ko defee nag ñu xamee ci rek ni loolu munta yàq daara mun munta tilimal derub daara parce que waxuñu ni kii mooy daara ji am Sénégal si si daara yi nii nangam bu buñ la ko waxee yow ñu koy wax am na daara joo xam joo xam ne mbirum noonu bu ñëwee suñ daara dañuy jaay lu bon am nga suñ daara yu bari yoo xam yoo xam ne jaayuñu lu bon kon loolu jërul muy naqare benn Sëñ Daara c'est que film moo tudd film Sénégal nag dañuy jël film def ko réalité da ngay suyee ci film bi rolu seytaane doon jigéen ju bon ji di ko suyee ñu bëgg laa jàppe ko bon boo dajee yow ci mbedd nga doon jigéen ji jaay boppam ñu jàpp ni dëggantaan da nga jaay sa bopp fekk demeewul noonu nit dina ëmb ci ci théâtre bi ba am doom di di caat di taxawal te fekk moom ab jànq la am musa musa xam góor nit dina nekk ku bon te fekk du ku bon dañ ko ko suyeloo rek waaye loolu nga war a yee nag ñi ngay nekkal ñu ngay yar yee leen ci loolu yow itam nga yee ci sa bopp fexe ba xam ni série du réalité théâtre du réalité film du réalité ki ñu rey reyuñu ko ki bon bonut ki baax baaxut couple yi ñu lay wan ñu heureuse mus ñu am problème ci misaal buñ doon dem ci lu mel ni Pod et Marichou wala wala wala wéer wéer nga gis ni da bëgg a doon soosoo wala nga bëgg a doon subul fekk loolu daanaka amut couple bu amut ñooñu sax daanaka ci problème lañ dëkk waaye a wax rek mooy niñ lay jàmm ji am ci couple bi ak loolu yow nga bëgg koo dund ak sa jëkkër jàpp ne woo jàmm da ngay daal di am problème mais da ngay jéem a copier échaîner ah ndaxte kon ku am soxna nii la war a def ku am nangam jéem cee jàngate jëm cee yokke say point rek mais nekkul loo xam da ngay jàpp ne réalité la parce que kii koy suyee loolu sax dundut loolu dëggantaan oto yi rafet yi mu war kër yu yi mu dëkk dëkkut fu mel noonu amut oto yu mel noonu boo demee mën naa am lix bi mu lay wan wut noonu kon yooyu tam Sénégal yi war nañ ci yow bu baax a baax xam ne daal théâtre théâtre la tudd bañ nañ ko ba sax léeg nga ñu la da ngay théâtre kon wóor ñu ko jàppe dëgg nga war a jàppe rek kuy lépp mbaa muy maye léegi bi nag bukkeeg lëg fi defoon nii mën nga cee jànge dara xam nga ne bukkeeg lëg defuñu noonu waaye man naa am loo ci jànge noonu daal laa ko déggee jàpp ni itam war nañ ci bàyyiwaat xel baax a baax sénégalais yi lañ war a yaar rek ci ñu xam lan mooy film xam lan mooy théâtre xam yeete lan mooy lan lan mooy télé lan mooy rajo waaye bañ koo jàppe rek ni lu jóg pour yàq nit ñi loolu lu jóg pour defar la waaye lenn lu ci ne da nit ñu nag ñu war leen cee yee waaye niwuñ xale da koy yar rek bàyyi noonu waaye danga nga koy yar boole ci yee ko ba mu yeewu loolu ci am solo surtout jamono ji ñu toll nii tolluwuñ ci jamonoy waaraate waaye dañoo toll ci jamono yeete dañoo war a yee nit ñi ñu yeewu xam-xàmmee bu ko defee xam ne lii bari na waaye baaxut lii donte bariwut moo baax loolu rek ci la yar nit ki bu ko defee bu xamee li baax rek moom bu jógee pour baax dina xam fi muy jaar wasalaamaaleykum wa rahmatullah